أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bokki jullit yi bokki taalibe yi waa M-Media Group Nourou Darayni ñoo ngi sant yàlla subhanahu wa taala di jullit ci yonentem boobu sallallahu alayhi wa sallam di leen ziyaare di leen dokkeel di leen baal xaq di ñaan ngeen baal ñaq di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu ñu ngul mu nungul nu suñu jaamu yàlla te jéggal ñu suñu rëcc-rëcc di jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuyoo boobu ñu ci jiital suñu kilifa gi a cheikh abdul ahad Mbacké di ko ziyaare di ko jaale mbokk moomu sëriñ Mamour Mbacké yàlla na ko yàlla teeroo ca xiwali àjjana ya gën a koy bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te dolli ko leer te taas ñu ci barkeem di ko jaale di ko jaale mbooleem mbokki jullit yi rek yépp di ko jaale waa ahlul quran yépp ndax jëmm la joo xam ne ji li gën a am solo moom la doon taxawee ci kaw suuf muy alquranul karim kon ñu ngi koy jaale ñëpp di ñaan yàlla taas mi ci barkeem bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu waa groupe bi yëpp jël néew boobu di ko teg ci loxo kilifa gi rek muy Cheikh Abdou Rahman Mbacké mu jot leen ñu ko ñëpp rek góor ñeeg jigéen ñi mag ñi góor ñeeg jigéen ñi ñu nekk ci biir groupe bi yëpp di leen ziyaare di leen ndokkeel di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu dolli ñu dëgëral gën ñu dimbali ba liggéey bi gën a sell gën a jëm kanam bu baax a baax a baax kon tey xam naa ñuy fas yéene tàbbiwaat ci liggéey bi rek ci loolu fi mbokk yi doon rotal ci ay laaj ñu jëm ci xool luñ ci tontu rek ci suñu kemtalaayal kattan kon tey laaj yiñ fi jëkk am rek mooy soxna Xadi Ñang mi ngi laaj bayit yi nga xam ne moom la sëriñ bi bind maanaam day laaj bindam sëriñ bi daal ay bayit yoo xam ne mën nañu ko ca jël di ko ca di ca di ca ñaan maanaam ñaan suñu yépp soxla nag am na soxla yu mu ko jagleel waaye dañ ko naan rek moom bayit yi daal moom li sëriñ bi bind moom xasida goo ci jël wala bayit yoo ci jël di ko jàng te yàlla rek tax lépp loo cay fas rek yàlla mën na faj aajo jooja mu yomb lool jàpp ni lool ndax xasida yi moom bayit yépp am solo yépp mën a faj aajo te jële nañ ci jëmm ju mag mu ne Cheikh Abdul Ahad Mbacké day am na jëmm ju ma si ñëw ne ko man daal Mbacké dama bëgg nga xoolal ma xasida gi nga xam ne gii moo gën a am solo nga wax ma ko ma di ko jàng waaye Cheikh Abdul Ahad Mbacké da ko wax ne ko man de dama bëgg yow soo xaman xasida gi ci gën a ñàkk solo yow nga wax ma ko man ma féete woo ko di ko jàng kon loolu day tegtale ne mbindam sëñ bi moom amut lenn lu ci ñàkk solo waaye lépp a am solo lépp a mën a faji aajo dafay fekk ni nag sëñ bi moom ci mbindam xasida yi gu ci nekk ak nam ko bind am na yoo xam ni da ko bind ngir di ca tàgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na ci yoo xam ne da ko bind ngir di ca julli di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye tamit am na ci yoo xam ne da ko bind ngir di di ca sant yàlla di ko dol delloo njukkal moom yàlla subhanahu wa taala ci xewal yoo xam ne da ko defal muy canto nga xam ne gi dafa war jullit bu nekk waaye tamit dafa def ay xasida yoo xam ne yii ay ñaan yu am doole yu ama am solo la def ca biir ci wàllu fànn ngoo xam ne gii gum mën a doon nga xam ne gii jullit bi nit ki da koy soxla woo rawatina jullit bi bu dee ci wàllu wér-gu-yaram bu dee ci wàllu mucc ca balaaya bu dee wàllu am xéewal bu dee ci wàllu am tawfiix yépp lu mu ci doon rek sëriñ bi def na ci ay bayir yoo xam ne yii wala ay xasida yoo xam ne yii ku ca jàpp di ca góorgóorlu te sellal ko di ko jàng te yàlla rek tax loo ca faj rek ci wàll yooyu rek yàlla mën na la caa fajal aajo jooja bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon noonu mu ko sàkkoo rek soxna si ci ay bayt yoo xam ne yii mën nañ cay ñaan moom yépp a ko mën waaye nag mën nañ ci jël ay bayt yoo xam ne daal moom ku ca jàpp sellal ko di ko jàng daal mën na laa fajal say aajo ñu jël ci bayit bu mel ni bii sëriñ bi wax naan yaa man mata taqul li amrin kun yakun xaatib qadaa xaajati bi lafzikun yaa man mata taqul li amrin kun yakun xaatib qadaa xaajati bi lafzikun bayit googu day ku ko saxal di ko jàng def ca di ca def ak lim bu bare bare bare te selal ko def ko ak jaamu yàlla rek loo ca faj ci say aajo yàlla mën na la koo fajal ndax foofu yoon sëriñ bi dafay wax ak yàlla boromam naa kon yow yàlla yow mi nga xam ne mii mépp mbir moo xam ne mii soo ko bëggee rek danga naan loola na nekk loola daal di nekk maa ngi lay ñaan nga sama aajo ji nga xam ne ji moom laa am nga tàbbalal ma ci baatab kun boobu maanaam jàppale ma ci waxal ma mu nekk bu ko defee loola mën a jàppandi ndaxte loolu it dañ koy sukkandiku ci fii di yàlla yàlla wax ne innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun yàlla dafay wax ne yàlla moom ay mbiram yépp lu mu ci mën a doon rek su ko nammee moom yàlla danaan loola nekk rek mu da loola daal di nekk sëriñ bi daal di ci bind bayit bii ne ko yow mi nga xam ne daal am nga kàttan ku toll noonu ak man-man ak ab sañ-sañ nga xam ne loo ne nekk rek mu nekk maa ngi ñaan sama aju ji nga jàppale ma ci mu nekk su ko defee mën naa bokk ci bëri yoo xam ne yi mënees na koo jël di ca sàkku ñaan di ca sàkkooy aajo muy yassir lahum bihi lazi taassara fa kullu ma yassartahu te yassara yassir lahum bihi lazi taassara fa kullu ma yassartahu te yassara comme bayit gi nga xam ne ba it sëriñ bi da ci ñaan borom moom ne la ne ko yow yàlla maa ngi ñaan ci barkeb sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga yombalal leen nga yombalal jullit ñi lépp loo xam ne lii jafe na leen ndaxte yow yàlla kat lépp loo xam ne lii yombal nga ko rek loola day daal di yomb kon bayit googu muy yassir lahum bihi allati ta'assara fa kullu ma yassartahu tayassara aajo joo xam ne ji jullit bi am na ko wala taalibe bi saxoo bayit googee wala bayit gii mu muy may wax ni aajo jooje it yàlla mën na ko caa jàppale yombalal ko ko mu jàpp ni lool ndax foofu it yàlla dafay wax ne sa yajalullahu baada usrin yusran dane yàlla moom bépp jafe-jafe boo xam bi am na rek su jaam bi ñaanee boromam yàlla moomu mën na caa daal di toppal ak yombal daal di wax na waxaat ne inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran ne ne gépp ja yom jafe goo xam ne gi am na rek la cay topp mooy ak yombal ba tey noonu mu ko waxee kon sëñ bi daal ci bindaat bayit googu itam ñaan ci ñaan gu am solo googu nga xam ne gi moom la ca ñaan ngir yombal ay mbir daal di waxaat ne wahab lana taysira wal falaaxa fi kiltay daarayni wan najaaxa wahab lana taysira wal falaaxa fi kiltay daarayni wan najaaxa bayit googu itam it ñaan gu am solo la goo xam ne moom itam sëriñ bi da cee ñaan yàlla jàppandal mépp mbir moo xam ne nii moom la jàmbee aajo woo muy wahab lana taysira maa ngi leen ñaan yow yàlla yàlla mu may ak yombal wal falaaxa ak ak texe fi kiltay daarayni ci ñaari kër yëpp muy àdduna ak alaxira wan najaaxa maa ngi leen ñaan itam lépp loo xam ne li sóobu nañ ci rek loola sutti àndu nu am ca la nga xam ne lii moom lañ ca bëgg ak bayit gi muy wax ne wa kam milan kullama nanxu wa naqsuluhu wa hablana kullama naxtaaru yallaahu wa kam milan kullama nanxu wa naqsuluhu wa hablana kullama naxtaaru yallaahu ak bayit gi mu waxaan ne yow yàlla maa ngi leen ñaan lépp loo xam ne li dañ koy jublu bëgg ko ci suñu aajo maa lay ñaan loola nga matalal nu ko te it ne ne waxab la na kulla ma naxtaaru yàlla te it yow yàlla maa ngi lay ñaan lépp loo xam ne lii noo ngi koy tànn mu doon lu baax mu doon lu la neex muy doon sunu aajo ñu bëgg ko loola yàlla na nga nu ko may ak bayit gi nga xam ne gi it moo nekk nii muy warud lana kulli di saabin wa di xaranin wa yassiran kulli di taasir yàlla warud lana kulli di saabin wa di xaranin wa yassiran kulli di taasir yàllahu bayit googu sëñ bi da ciy ñaanela ne ko yow yàlla maa ngi la ñaan lépp loo xam ne lii lu nu jafe la ci sunu aaju yi yàlla na nga ko tàggat yombalal yombalal nu ko ba nu am loola waaye tamit ne lépp loo xam ne lii lu jafe la yàlla ñoo ngi lay ñaan nga yombalal ñu ko bu ko defee kon ni ma ko waxeen ca tàmbali ba rek muy mbindam sëñ bi moom lépp am ay njëriñ lépp mën a faj ay aajo waaye tamit da cee am ay bët yu mu tànn loolu mu doon ak ñaan gu dëgër goo xam ne gi ku ca sax rek maanaam say aajo yàlla mën na la ko ca fajal su ko defee bu fekkee ni wàllu mucc la maanaam nga ragal ay balaa wala ab safaan wala ay musiba yoo xam ni day dal nit ki lu mel ne ay feebar ak ràgg-ràgg xol ak yooyu yépp yooyu tamit sëriñ bi def na ci ay bayt yu baree bari yoo xam ne daanaka mën nañ ne it comme xasida yu bind yépp ku lu mën a musale ci balaa yooyu ak musiba yooyu su ko defee bu dee ci wàll googu la itam mën nañu ñaari bayt yi nga xam ne yii moom la sëriñ bi bind ci xasida gi mu tuddee sindiidi sa xasida boo ñuy wax sindiidi mu def ci ñaari bayt yoo xam ne yii juróom ñaari balaa ak fitna yi nga xam ne yi maanaam mooy mën a jóge ci mbindeef daal yooyu yëpp sëriñ bi tënk na ko ñaari bayt yooyu ñaan yàlla ne ko yàlla na ci mu yàlla na nga nu ci musal te ñaari bayri mooy wa kun muizan lana min charri di xasadin ma sharif amin wa charri l ayni yallahu wa charri sixrin wa charri l xalqi insihimu ma jinnihim wa dawati sum yallahu wa kun muizan lana min charri di xasadin ma sharif amin wa charri l ayni yallahu wa charri sixrin wa charri l xalqi insihimu ma jinnihim wa dawati sum yallahu ñaari bayt yi sëriñ bi da cee tënk juróom-ñaari fitna ak i balaa ak i musiba yi nga xam ni maanaam moo mën a jóge ci mbindeef yi mbindeef moo xam nit la wala jinne mu ñaan yàlla ne ko yàlla na nga ci na nga nu ca musal mooy ne wakkun mooy seen lanaa yow yàlla yàlla na nu musal min charri di xasadin ci ayu koo xam ne kii dafa soxot muy benn ma sharifa min ak ayu gémmiñ maanaam ayu làmmeñ am na ay làmmeñ yoo xam ne yi lu ñu tudd day yàqu wa charri la ay ni ak ayu bët am na bët yoo xam ne yi lu ñuy xool day yàqu suñ bi ne yàlla yàlla nañu ci musal wa charri sehrin ak ayu kuy jibar ayu ab jibarkat wa charril xalqi ak ayu wépp bépp mbindeef boo xam ne bii ak wépp ay woo xam ne bi dafa tukkee ci mbindeef moo xam ayu wu tukkee ci nit la wala ci jinne ak it ak it wa zawati summi ak lépp loo xam ne lii dañoo amee tooke yow yàlla ne ne maa ngi lay ñaan nga musal ci kon bon lii boo koy lim juróom-ñaari fitna ak musiba yi nga xam ne mën nay dal nit suñ bi da ko tënk fii ci ñaari bayit yi nga xam ne kuy bari looy jàng bayit yi rek muy ñaari te ma nga nekk ca sindiit yi yàlla mën na la musal ci juróom-ñaari te defe naa juróom-ñaari ku ci mucc mucc nga ci bépp loraange boo xam ne bii maanaam dafa war a tukkee ci mbindeef moo xam nit la wala jinne la bokk na ci itam ngir nga am ak wér ay tawat yu nekk ci yow man ti wér ba du la sonal rawatina sunu jamono ji nga xam ne ji moom la ñu dund feebar yi bari lool xasida gi nga xam ne gi moom la ñuy wax matlabu shifaa yi nga saxoo ko di ko jàng suba ak ngoon ndax matlabu shifaa yi sëriñ bi dane yaa man yarumu dafaa kulli daa i falaa tufaariq matlaba shifaa i wa dum alayhi fi lmasaai wa sabaax wa axrisan tanal shifaan wa falaax dane yaa man yarumu dafa kulli daa i yow mi nga xam ne mi danga dangay sàkku mucc ci bépp bépp balaa yaa man yarumu dafa kulli daa i yow mi nga xam ne dangay sàkku mucc ci bépp feebar falaa tufaariq matlaba shifaa ne na nga góorgóorlu ba bul tàggoog di jàng matlabu shifa wa dum alayhi fil masa'i wa sabah na nga góorgóorlu ba matlabu shifa yi nga sax di ko jàng suba ak ngoon bu ko defee ne ne talal shifa an wa falaax ne ne soo saxoo di jàng matlabu shifa yi suba ak ngoon di nga am ak wér maanaam di nga am saafara ci bépp jàngoro te it di nga am say aajo maanaam dina ci mën a fajoo te gis nga xasida gi bi ko sëriñ bi bind ne nañu dafa nekkoon ci feebar bu métti boo xam ne bi dem na ba daanaka toll ci sukuraat nga xam ne bi muy bi bayit xasida gi muy matlabu siwaay bi sax bi mu ko bëggee bind mënut a am kàttan ak jóg ba bind ko waaye ne nañu ab soxna la woo ci soxna yooyu fàtte naa tur wa maam sëriñ bi di ko dicté bayiti matlabu siwaay yi soxna si di ko ko bindal te ne na jamono yi mi ngi toll daanaka ci sukuraat te gis nga matlabu sifaa yi na mu tàmbalee fale ne xamdan li munzili dona wa daayi wa munzili sifaa yi wa dawaayi la wax ne maa ngi sant yàlla mi nga xam ne mi ñaari jàngoro yi moo leen wàccee waaye bi mu leen wàccee ñoom ñaari itam mooy ñaari jàngoro yooyu da ci bu ci nekk da ko wutal ab saafara boo xam ne bii ku koy sàkku rek maanaam mën naa saafara feebar boobee ñaari jàngoro yi muy dona ak daayi ak dana mooy feebar boo xam ne bii day nekk ci nit ki te maanaam kenn du ko gis maanaam kenn du xam feebar bi feebarab lan la doon nga xam ne nit ki moom su ko feebar boobu dalee ku ko gis rek di nga xam ne kii ku feebar la waaye bu ñu xoolee ci natt waaye ñuy natte feebar maanaam du ñu gis feebar boobu loolu la ñuy wax dana waaye bu dee daa la nag day doon feebar boo xam ne dañ naan feebar bi feebar nangam la feebar sangam la maanaam ñu mën a xam loo xam ne lii dana ko faj kon defe naa ñaar yooyu moom. li ñu koy dund fi mu ne nii bari na lool ndax bari na ñoo baree bari ñoo xam ne ñii saa boo leen gisee xam ne dañoo feebar waaye seen feebar ba maanaam mënuñoo xam ban façon feebar la mënuñu ko faj beneen bi ci des mu doon boo xam ne bi bu ñuy xam la di mën a wut ay garab yoo xam ne yii mën na ko faj yooyu yëpp nag sëriñ bi dafa boole ne maa ngi ciy sant yàlla mi nga xam ne mi moo wàcce ñaari jàngoro yooyu waaye bi mu ko wàccee itam bu ci nekk terewut defal na ko saafara boo xam ne bii su ko nit ki dee def mën na ko faj mu denc secret bu ci biir matlabu shifa yi ba tax ne mu wax ci ne kon yow mi fee yow mi nga xam ne da nga bëgg daal saafara ci jàngoro yooyu bu mu ci mën a doon da ngay taqoo ak di jàng téere matlabu shifa yi boobu suba ak ngoon bu ko defee ay feebar yu mën a doon rek yàlla mën na la ci génne lu mu garaaw garaaw ak lu mu métti métti ak lu mu nëbbutu nëbbutu bu ko defee itam ci xasida yi li suraatil bayay bu fekkee ne da ngay jaay bëgg yow sa njaay moomu jaa di gaaw a jar ci kattan ak yàlla bayit gi nga xam ne gii moom la sëriñ bi wax ci jawartu dafay jëm ci wàllu bayram njaay maanaam lu mën a gaaw la am njaay muy waqaaniyal baaxi bihi subura tijaarati ladayhi lan tabura waqaaniyal baaxi bihi subura tijaarati ladayhi lan tabura yow mi nga xam ne bi da ngay jaay bayit gi soo ko dee mën a baamu lu baree baree bari te di ko sellal di ko def ak jaamu yàlla rek di ko tafli ci sam njaay wala nga di ko def ci ndox di ko ca wis wala nga nekk ca njaay ma sax di ko wax te sellal ko yàlla mën naa dugal sa njaay moomu du lamb te dina gaaw a jar kon bu ko defee ci wàllu njaay mi itam bayit googu gu am am solo la ci bu fekkee ni ab jaaykat nga yeneen laaj yi topp sëriñ ndiir moo koy laaj ñoo ngi koy ziyaare di ko ndokkeel moom dafay laaj ne man lahu zawjataani wa saraqat minhu ihdahuma mablagan min al maal fa azama zaj ala irtaai al oxra misla hada al mablag adalan baynahuma dane li muy laaj mooy waa ji dafa am ñaari soxna kenn ki moom am xaalis bu mu sàcc ci moom maanaam benn soxna bi sàcc ci moom ab xaalis te moom leer na ko nañ ne soxna su moo sàcc xaalis boobu yi waaye bi mu ko laajee soxna si nag soxna si dafa lànk bañ nungut ni moo ko sàcc nungu te delloo xaalis ba waaye bi loolu amee waa ji nag ne kon jéem kii sàcc na lii ci man mu def xaalis te moo ko nawle ma fi nekk maanaam mook moroomam mook wujje ma fi ne kon damay jël lu toll ni li nga xam ne lii moom la soxna see sàcc ma jox ko keneen kii muy laaj loolu lan moo di atteem su ko defee lan cay jëkka tontoo mooy daal laa yajuusu shar'an an taaxuza zawjatu shay'an min maali zawjiha duuna ilmihi maa lam yakun shahihan laa yunfiqu alayha aw ala awlaadiha bima yakfihim foofu li ñu fi jëkk a xamle mooy soxna su mën a doon du dagan ci moom maanaam muy jël ci alali jëkkëram lenn loo xam ne li maanaam jëkkër ji yëgu ko soxna su mën a doon duñu ko may ne ko yow mën nga jël ci xaalisab sa jëkkër ji lu du te du ko xam maanaam du ko yëg lu dut ni waaja dafa nekk ku nay koo xam ne kii maanaam la nga xam ne lii moom la ko war a jox ci dépense du ko jox maanaam nga xam ne du ko jox lu ko doyab dépense waaye itam la nga xam ne lii moo war ca gone ya maanaam doom ya leen yàlla jox njaboot ga waa jooju dafa nay ba du ko def maanaam du leen jox lu leen doy ne ne daal waa ji moom feeg mi ngi jox soxna si lu doy loo xam ne lii mën na ci lijjanti boppam di ci lijjanti njaboot ga ci wàllu dépense ci yépp nag ya ca war ne ne su waa ji day def loolu moom soxna si du am benn sañ-sañ maanaam di jël ci alalam jooju lenn loo xam ne lii yëgu ko waaye nag bu waa ji nayee ba xam ne la ko war ca njaboot ga ak lañ ca war a dépenser moom du ko def ne ne su boobaa may nañu soxna si muy jël loo xam ne lu tolloog la mën a lijjanti ay ak la ko mën a lijjanti ay soxlaam ak la mën a lijjanti ak njabootam mu di ko ca jël ci loo xam ne lii du ko yëkk kon loolu mooy liñ koy jëkk a tontu ci wàllu googu kon daal benn soxna daal du sañ di jël alal yi boroom këram ci waanaam da koy sàcc maanaam di ko jël te yëgu ko lu dut ni waa ji daal dafa nay ba la ko war ci dépense yooyu ak la war ci njaboot ga du ko def waaye su fekkee ni nag defu ko am na sañ-sañ di ci jël te waaja du ko yëg loolu lay wax ne fa in kaana kazalika jaasa li zawjati an taaxusa min maali zawjiha duna ilmihi bi zalika ndax loolu maanaam soxna su jël di jël ci alal yi ab sëriñam te du ko yëg ci bu fekkee ne waa ji du ko jox lu doy dañ cee am nit bi muy xaddis bi muy anna zawjata aba sufyaana shakat li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam zawjaha wa xaalat inna aba sufyaana rajulun shahihun nene dafa amoon soxna soo xam ne si mooy soxna aba sufyaan maanaam abi sufyaan soxna si nene abu sufyaan daal dafa nekkan ku nay koo xam ne kii maanaam du ko jox loo xam ne lii lu ko doy la mu dem jàmbat ko yonente bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko xuzi ma yakfiiki wa waladaki bil ma'rufi yonente bi daal di wax soxna si ne ko kat jëm noonu la demee boo demee del xool loo xam ne lii doy na la doy sa njaboot ca àll ja nga di ko ci jël te bul ko weesu maanaam nga yem ca loola waaye nag wa amma an tasrixa zawjatu min mali zawjiha fala yajuzu sharan mene nag jëmmi nag soxna si moom dem di sàcc alal li sëriñam moom loolu moom sharia du ko nangu benn yoon ndax yàlla subhanahu wa taala dafay wax ne wa saarixu wa saarixatu faqta'u aydiyahuma loolu nga xam ne lii moom la soxna si def maanaam buñ ko doon attee attee maanaam ku sàcc rek lañ lañ koy attee te alxuraan moom moom li mu wax ci ku sàcc moo xam ku góor la wala ku jigéen lay atte mooy maanaam kum ci mën a doon nañu dagg ab loxoom kon leneen li mu waxaatin ne waa ji nag daal di dogu ci ne léegi day jël som bu toll noonu maanaam lu toll ni la ndaw la son na soxna sa sàcc mu jox ko keneen kayit loolu dañ ko naan wala yajuuzu li zawji i'taa'u zawjati al-uxra misla al-mablaghi al-masruuq lil adli li anna allati saraxat fa'alat zanban yujibu alayha xadda sarixati wa huwa qat'u al-yadi dañ ko naan jël lim bu toll ne da koy ne da koy jox seneen soxna si nga xam ne sàcc ko ngir dawal ak maanu seen diggante ne loolu moom maanaam waru koo def ndax kee moom lam def maanaam dafa def bàkkaar boo xam ne bii maanaam ab jullit waru koo def kon du bu defee loolu muy bàkkaar mu di dafa sàcc nga xam ne bu doon dañu àtte islaam moom la ko cay tege mooy dañ dañoo war a dagg ab loxoom kon du tegtale ne kon yow itam dangaa war a jël rek som bu toll noonu maanaam nga jox ko seneen soxna si nga xam ne si moom sàccut waaw ngir ak maandu loolu itam doon loo xam ne si luñ lay may la ndax bu dee ci wàllum maandu la ñuy lay wax moom beneen affaire lay doon beneen kii lay doon boo xam ne bii du demee ni comme nii mu demee nii kon daal loolu mu laaj noonu ci diggante sëñ boobu ak ñaari soxnam yi daal loolu mooy li nga xam ne lii taxawaay boobu lañ ca war a am wallahu aalam yeneen laaj yi ci topp sëriñ Alioune Badara Ndiaye moo koy laaj moom li muy laaj mi ngi jëm ci wàllu miraas am masala nag la fi joxe boo xam ne bii neneen nii la tëddee maanaam miraas mu mel ni lay laaj buñ koy miraas lañ lañ koy miraase dane miraasu man maata an zawjatin wa bintayni wa axawayni shaqiqayni wa uxtin shaqiqatin nit koo xam ne kii góor la daal di faatu bim faatu mu bàyyi fi benn soxna ak ñaari doom yu jigéen ak ñaari mag ak mag wala rakk yu góor yoo xam ne ñoo bokk ndey ak baay wala ak benn rakk wala mag ju jigéen yoo xam ne ji ñoo bokk ndey ak baay waaw it booy bàyyi na fa it ñeneen ay magam wala ay rakkam yoo xam ne yi dañoo bokk baay waaye bokkuñu ndey su ko defee dañ ko naan kooku faatu bàyyi fi soxna si ak ñaari doom yi ak ñaari yo góor yooyu mu bokkal ndey ak baay ak kenn ku jigéen ki mu bokkal ndey ak baay ñooñu ñoo ko war a donn waaye ña nga xam ne ni dañoo bokk baay rek wala ñu bokk ndey rek maanaam duñ bokk ci miraas mi ndax ñii mu bokkal ndey ak baay maanaam ñoo leen di yiir ba ñoom dootuñu ci mën a bokk su ko defee kooku bu faatoo maanaam dañuy xaaj alal ji juróom-ñetti xaaj benn xaaj bi ñu jox ko soxna si daal di xaajaat limab alal ja na mu toll ñetti xaaj jël ñaari xaaj ya jox ko ñaari doomu yu jigéen yooyee su ko defee bu ñu génnee cërëb soxna si te mooy biñ ko xaaja juróom-ñett ñu jox ko benn ba génne cërëb ñaari doom yi te mooy bi ñu xaajaatee alal ji ñetti xaaj ñu jox doom yu jigéen ya ñaari xaaj ya loola la ñuy boole génne ko ci xaalis ba nga xam ne bii moo la waa ji bàyyi woon bu ko defee buñ ko ci génnee la ca des ñaari magam yi wala rakkam yu góor yooyu mu bokkal ndey ak bàyyi ak magam ju jigéen jooju wala rakkam ju jigéen jooju mu bokkal ndey ak bàyyi léegi ñooy moom loolee ca des bu ko defee loolee des ca xaalis ba ginnaaw bi cërëb soxna si génnee ak cërëm ñaari doom yi ñoom ñii ñoom ñaar ñu góor ñii ak ku jigéen kii ñoo koy séddoo ci seen biir nañu koy séddoo nag mooy góor day am ñaari cër jigéen gi am benn cër masalan la ca des buñ ko doon séddoo dañu koy def juróomi xaaj ñaari mag ñi ñaari mag yu góor yi wala rakk yu góor yi jël ñeenti xaaj ya rakk ju wala mag ju jigéen ji jël benn xaaj bi nga xam ne bii moo ca des su ko defee masala boobu daal noonu la miraasam di war a demee beneen laaj bi mu ci tegaatin mooy xokkumu tanazulil waarisi an nasibihi day laaj itam miraas moo xam ne mii daa am ku ca maye wàllam dane faman tanazala min al warasati an nasibihi shar'i ta'ian muxtaaran wa huwa baalixun rashidun fa saxiixun ne ne képp koo xam ne ki dangaa bokk ci miraas waaw la nga ci aman ci ab cër nga wëlbatiku daal di koy maye may ko ña nga xam ne ñi ñoo moom miraas ñoo bokk miraas ma te yow bi nga koy def yow yaa ko tànnal sa bopp yaa ko coobarewu te it maanaam fekk kii maye cëram boobu ku majeur la maanaam ku ànd akam xelam la ku mat la mu kallaf la te it maanaam ku amam xel la ànd akam xelam mu coobarewu rek ne maanaam man daal cër bii nga xam ne bii moom lañ ma séddan ci miraas mi daal may naa ko bu boobaa may googu lu wér lay doon bu ko defee mu ne wa haasi tu'tabaru hibatan minhu liman tanazala lahu ne ne kon loolu su ko defee muy cëram boobee ku mu ko ca may rek daña seq miraas ma maanaam maanaam ak maye lañ koy tudde maanaam da ko ko may loolu nag bu ko defee na miraas mooy demee mooy dañuy miraas ba kiy maye ab cëram génn maanaam mu di ko doog a maye ndax maye ni ñu koy waxe fii nii mooy dafa mën a nekk ci ay fànn maanaam maye gi dañ ne nawaani la tanazulun amun wa tanazulun muhaddad dafay am maye goo xam ne gii maanaam day matale waaye day am ak maye goo xam ne gii maanaam dañ koy daytal maanaam da koy wutal charte su ko defee loolu tax dañuy miraas ba mu xam ne nangam la ci moom su ko dee maye nag maanaam mu seet ñamu koy may wala ka mu koy may léegi cëram boobu su dee tanazulun amul la te mooy na ne da ko may ñi bokkan miraas mi ñëpp kon ñoom ñoo koy bokk séddawaat ko bu dee tanazulun muhaddad la te mooy na ne maanaam sama wàll wi daal may naa ko kenn ci ñoom wala ñaar ci ñoom wala dama koy xaaj lenn li ma may ko li ci des ma jël ko ne na bu boobaa it kamu ko may wala ñamu ko may maanaam dañu koy dolli ci seeni cër bu ko defee mooy tax bala ñuy mën a maye da ngay xam cër bi nga xam ne bii moom nga am ci biir miraas mi ndax boo nee maye naa ko rek te xamuñu yow cër bi nga ci am nu mu toll ak boo ko mayee kenn duñu xam nuñ ko lijjantee boo ko mayee mbooloo ma itam day lijjante ba day daal di jafe kon dañuy miraas ba mu xam ne nangam la am maanaam cër boobu mu xool ku mu ko may wala ñamu ko may su ko defee loolu ku ne sañ na ko maanaam cër bi nga xam ne bii moom nga am ci miraas mi nga seet ku la neex nga may ko ko wala nga seet ña nga xam ne ñi ñëw seqan miraas ma nga ne leen may naa leen sama cër boobu loolu lu lu ñu may nit ki la su fekkee nit ki mi bi mu koy def mi nga ànd ak am xelam tey dem na ba doon magam yàlla jëm moo xam ne ni ràññee na xam na su boobaa loolu may nañ ko waaye tamit nañu ko defe noonu nga xam ne nii moom lañu ko sante muy mu tànn ka mu koy may bu dee kenn la wala bu dee ni ñoom ñëpp la koy may maanaam mu leeral ko ñoo xam ne ñu koy mën a dol delloo dolle ci seen cër ya kon ñoo ngi ñaan yàlla defal ñu tawfiix bi jëy seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wasalaamu aleykum wa rahmatullah